de l'actualité fi ci chaîne Diaspora TV tay comme dañuy def ben taxaw sétlu politique bi Macky Sall du présidentielle bi li déssa Ousmane Sonko ndax leader Pastef bi dina bokk lolu moy laaj bi investiture bi amal sept mois moo dox suñu diggante ak présidentielle 2024 bi waaye ba fii mu toll nii lenn rek moo leer ci bopp nit ñi mooy Macky Sall moom du bokk moom ci boppam moo ko xamle loolu tax na ñu bari jàpp nañu ni ñàkk bokk boobu dafay yóbbaale kii di Ousmane Sonko ndax ba président bi di yëgle loolu dafa wax ni moom li ko dese ci nguur gi du bàyyi kenn di jaxase réew mi kàddu yooyu nag dafa mel ni Ousmane Sonko moo ko moom ndax moom lañu joxañ baaraamu tuuma ni dafay woote insurrection ba am ay nit yu si ñàkk seen bakkan ba loolu weesoo kii di maire Ziguinchor bi moom yoon daf ko daan six mois de sursis si procès contre Mame Niang bi si procès Adji Sarr bi nag Sonko ñaari atu kaso la ko yoon daan pour corruption de la jeunesse te boo xoolee article L29 L30 ak L57 bu code électoral ku am daan yooyu yu Ismane Sonko am mënul bokk si élection yi loolu nag ñii di patriotes yi gisee wuñu ko noonu ñoom Sall nañu ni élection présidentielle mënul am en 2024 Ousmane Sonko bokk ci ñom dal dañoo japp ni justice bi dañoo leen sant ñu yak ay ba Ousmane Sonko du mëna bokk pour wane ni ñom loolu lañu gëm démb la façon yéene amal seen meeting d'investiture fële ca stade Amadou bari waaye gouverneur da nag daf ko aaye ndax nee na Ousmane Sonko dafa waxoon ni dina def kawo ci dëkk bi loolu moo tax mënul nangu meeting boobu Ousmane Sonko mii ndayu mbili gi nag moom ci boppam génn na démb ad addu ay jege ñaaleen ne leen ñu bàyyi ba fii ak ay bis ñu xool nu ñuy amalee investiture bi tey nag moom dafa woote concert casserole bu 20 jotee investiture bi ci boppam presse bi nee na neexul Macky sàll pour moom lii provocation la. ba tey ci politique ñu wax ci Benno Bokk Yaakaar ñoom nag démb la ñu waroon a siiwal seen candidat Macky sàll gannaaw ba nekkul Sénégal dafay bàyyi ba dellu si pour xamle ki muy tànn loolu nag nar naa indi suñu moytuwul ay problème ci coalition bi ndax Aly Ngouille Ndiaye Mokhtar Cissé Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo ku nekk moo ngi toog di xaar décision Macky ñu bari jàpp nañu ni loolu moo nar a tas APR ndax ku mel ni Daouda jàlloo ak. Amadou Ba neexoo wuñu est-ce que kenn dina nangu moroomam jiite ko loolu mooy laaj bi waaye Macky moom xamle woon na ni ku muy tànn du ci xool ànd li muy xool mooy kan moo ëpp chance pour gagner élection bi ba tey ci loolu ana lan la parti socialiste ak AFP nar a def fan yi ba ñu àndee ak Macky lu ëpp 12 ans est-ce que dinañu nangu beneen nit jiite leen ñu toppaat seen ginnaaw lu ni mel moom Alioune Sarr dafa mel ni xalaatu ko moom daal dafa mel ni ku jël yoonu boppam xalifa sàll moom mi nga xam ni ci opposition bi la bokk moo ngi def lu mu mën pour récupérer lii di appareil politique bii di PS. ba tey ci présidentiel bi ak waa PASTEF bu dee Ousmane Sonko du bokk ana kan la waa parti bi nar a tab loolu mooy laaj bi nga xam ne ñoom ci seen biir ñoo bëgg nañu ko tontu ñoom daal dañoo gëm ne Ousmane Sonko day bokk par force waaye boo xoolee presque ñi nekk ci ginnaaw Sonko yépp ñoo ngi prison waaw fari Diomaye Faye Fadilou Keïta ba si Birame Souleye Diop mii dugg kaso bërki démb kenn mënul remplacer Sonko bu bokkul kii di président groupe parlementaire bu yeewi askan wi moom dafa yëkkati woon ay kàddu yu ñagas jëmale ko si président Macky sàll ak Alassane watara loolu moo ko yóbbu mandat de dépôt suñu mbokk internautes yi lii leen leen indiloon ci seen round-up de l'actualité di leen jox dig daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf